jërë ngeen jëf mbokk yi mbokk Wassare Lamb mu ñëw di ziar tey ñoo ngi si arène bu mag diggante Xeeru Ngor ak kii di Mbaye Tine waaye combat yi ndaw ñooy door ñaari mbëri ñoo ngi lewtoo borom gam ah dem nañ tooñ na ko takk bala xale xam nu ko def da koo takk noonu la wax takk da koo takk woon mbiñ àggale ko suuf combat bi dafa gaaw ndeysaan lamb doolati na oh man ne balaa may lamb yi jeex na li mooy lamb bëre ba na li lay wax rapidité efficacité tey lii ay nes xoolal ma doomu si indi yëpp rek mbëru mbooloo la dañ koy yónni yaa xam di ko moo tey nes ma takk bi rek cey li combat yi waaye waru ko de def premier combat ndax nee naa la nees mi bu ñibbee ay supporter am ah est-ce que ay supporter am xaas nees nuyu nañ ñoo lay fay soxna si vraiment ñëw ci bërëb bi mbooloo mi la waaw yéen gisagoo leen dara lii commencement la rek da nga ne bi mooy sa premier combat ñi may topp si mbapati barki Serigne Saliou ñëwagun fii si arène bi eh. billaay wallaay wa tallaay bi mooy sama premier sotti nag waaye ñaakarob nag maa leen sant maa leen gërëm ñaakarob laa dëkk waaw bébé nees di wax waa Niakhar ñëpp nan ma jàppale damaa bëgg lépp lu doon jooy ngir si Niakhar ngir mbër ma defaraat ko loolu laa bëgg incha allah rabbi waaw doxee conseil rek Scorpion ku ko xam si làmb xam ne grand champion la boo nee Scorpion nan la sandeer bu Cambérène nan la eh, sandeer eh, eh. na booy Niakhar kooku xam naa yaakaar naa ne ku ñu indi si stade bi doo ragal doo xoof damaa bëgg nag samay morom si làmb ji nan ma ko jox ah. rakk buuse bi. Eh. bëgg naa ko nañoo ñu bëree. bëgg naa ko nañoo ñu bëree. dañuy daw laax ñoom ñëpp nañ génn seen grand frère ñëw jëflanteeg seen morom yi. Ah. yaa ngi dégg Laurent eh. na ñëw ñu bëree. ñoo xam mais nan bàyyi daw laax bi dinañ wax ne man ñoom sama yem na sama morom lan ku si bëgg rek sama avancé ngi doon seen jee taxaw waaw na ko jël maa ngi sant waa Niagara bu baax ma njoon laay kii sama kii kii mooy libaas kii sama doom ndey la Libaas bun waaw maa ngi nuyu Nees Nees senior mu ngi ba États-Unis gis naa taxawaayam bu baax waaw di ko ñaanal nag jàmm waa ñaagaram ñëpp maa ngi leen di bëggee sama waa gàlle bàyyi ma kenn suba nag am na làmb sunu sunu mbër day bëre la jor yàlla ko yàlla may ndam waaw boo ñëwee ñàkk rab jërë noonu la demee da nga gis loo mësul gis bu boobaa merci beaucoup jërëjëf kontaan naa bu baax